ndax xam nga ni c'est ridicule dana am président bu jeune bu jantal dafa war a dugg ci oto bu rafet dugg ci avion bu rafet bon nu ta ñàkk quoi d'accord voilà mais un euh, mbay vraiment ñun jàpp nañ ni carrément ni maanaam fi mu war a yóbbu débat bi ak li nga xamante ne moom lan nu jaay ni intellectuel bi mu doon non du fii nañ koy xaar am niveau bi moo baax daal non dafa baax banquier la am na xam-xam ci wàllum wàllum koom mais nan ko xaar foofu nan ko déglu foofu te sunu borom dogal na ni carrément sénégalais yi ràññee nañ ko ci ràññee carrément xam ne amul capacité pour mën a diriger Sénégal à chaque fois heure bu defee expérience sénégalais yi wan ko ko kon na indi débat bi ci loo xamante ni day doxal réew mi ba nga xamante ni bu prouver président Ousmane président président Diomaye da koy jox ndombal tànk ndax il est là pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy prouver il est là pour teg leen maanaam ñooñu. Euh, ñooñu nga xamante ni dañuy prouver mu teg leen ñu mën a di liggéeyal Sénégal il n'a qu'à prouver ah man loolu laa gëm. d'accord hmm. du nii na ñuy opposé woo quoi non léegi costume léegi après bu jugee foofu la lay wax non oto bi daf oto bi muy dawal dafa cher dañ ko war a jaay léegi nañ ko wutal kalandoo mu koy dawal <laughs> no après fa la jëm après mu ni non costume yi ki mu koy jaay dafa cher kon loogu dafa war di sol percal quoi foofu la jëm ak ñun. d'accord je mais nanu yéegal niveau bi comme ça ñu indi affaire bi ci xam-xam. Mhm. voilà. d'accord euh, Sawolof dañuy ñëw ci suñu euh, beneen tomb boo xam ne actualité la ñu ñëw nag spécial ci suñu gan gi. Mhm. Euh, waxtaan ak moom ci li nga xam ne dana am solo trop nag ci li ñu mën a waxtaan ak moom te ku ci am xam-xam la dañuy ñëw rek jëm ci génnuk Mimi turee di ragg aw deram. jëm ci ay tuuma yoo xam ne yenn ci ay journal xëy nañ ko ko euh, gàll ne IGE daf ko épinglé Mimi Touré nag nee na non mille fois lekk ma dërëmu Sénégal te mu ngi soññee pour ñu topp gaañi ko lekk. bon xam nga man Mimi moom dama ko pas défendre sax parce que man dëgg laay défendre pa day dem ba dootuma doy ci moom seede parce que bala ma ciy wax sax ñi miin sama jotaay miin nañ ma man li may wax ci yi mais loolu dafa nekk ci moom. te man ceddo laa du ma waxal nit lu ma gëmul xam nga mimi bi mu xëyee magi xam ne xam na mimi mimi tout comme Alioune Badara Cissé hmm. saa yi ko Macky di indi rek mooy day dem ba fekk mënuta ñàkk mais gis nga ko nim ko def léegi nag bi mu defee loolu war a jëm ci opposition bi te nag kaay mu wax la troisième mandat bi bu dakkee ah. bokk na ci daal. F24 mën nañ ko wax wala nanga mais li ci Mimi Touré ak Ousmane Sonko joué surtout bi Ousmane duggee ci biir. kaso bi mm. man toog nañ ci en plein ci kii bi mooy avant ñuy dàq élection benn instant bi ñu dàq élection ba pare dama dem ba doxin wi gars yi di dox soof ma keroog dama xaw a xaaju sax ne leen ku dul Mimi Touré doo Guy Marius ma doo ma leader fi parce que ni muy defee engagement am na ci jamono daanaka bu presse étranger bi dee ñëw moom la ñuy waxal surtout CNN BBC ba ci Al Jazeera. am na ci bëccëg boo xam ne du ko fàtte mukk hmm. fekk boobu dama dem ba nit ñu miin ko ci man sax ba am na ci ñoo xam ne ci ànd surtout diaspora bi ay boroomi xam-xam dañuy jël bind ma say not wala ñu yónnee ma ay kii wax dañ naan ma fexeel ba wax ko miin nii nga xam ne dama mujj ak uh, Ibou Fass di protection rapprochée moom laa koy jox nga xam ne da koy bàyyi xel ak yu demee noonu hmm. mais mimi li taxoon mag yi bañ lépp ak ñu naan tudd nañ ko ci rapport ak ci ay kàcc rapport boo xam ne doo ko génne Macky Sall Macky Sall laa wax mm-hmm. rapport Covid bi mm-hmm. la tax mu génne ko ku mel ni juuf Sarr ak ñeneen ñi nga xam ne mënoon nañoo taxaw tenir ko tête moo tax mu defar ko moo tax mu deflu ko wala biñ ko defee ba pare mu kii ko teg ko daal koy génne ba ñu dégg tur commencé xam li ci juuf Sarr def imagineel keroog fàttalikul bi Macky Sall waxee ak waa APR ba ne leen wax leen ma kenn ku nekk wax ma ku bëgg a dem mu njëkk jàppaar ne jàpp ne amuñ fit mu ne leen SMS leen ma ko ginnaaw keroog kan moo wax bëgg-bëggam mennam Diouf Sarr. Mm-hmm. est-ce na ko. déedéet pourtant maam Boy Diaw waxul woon bëgg-bëggam. Aly Ngouille waxul woon bëgg-bëggam keneen ak keneen waxul bëgg mais mu ñooñu mujj taxaw mais noonu la Macky xamee woon ne Mimi fii la jëm léegi bi ñu ko dàqee par daan tudd nañ ko ci rapport moom mu ne leen acca na rapport bi génn Macky la Macky mii mi wax na na génn lekkuma dërëm mu askan beneen bi mooy ma wax la ci mimi man am na ci loo xam ne nit ki bu ma lay bàyyi xel daf may jaral xam naa lii bu ma ko waxee sax man naa am boobu ma nee xalaat dina xam fi ma ko jëlee gis nga mimi lim daan jot bi liggéey ci euh, benn organisation bu mag yi bokk ci ONU ci mu fay liggéey weer wu jot lim doon am dana jege quarante mille dollars mooy vingt millions. Hmm. jamono boobu weer wu jot dana ko am. su ma naan dana ko am nag mooy bu ñu boolee privilège yi muy am ak mm, voyage yi muy def ak yi mu mën a def yëpp teg fa la ko ba këram gi mu amoon Amérique cinq cent millions CFA mayu la ko da koy booleeg jaay ñëw Sénégal am na xarit bu ñu bokk boo xam ne booba am na ci ñoo xam ne dañ ne ko yow xanaa yow sa digg ak Macky est-ce que Macky takku la takku suuf sax di nga di ko nëbb wala yéen ñaar nga di ko parce que tellement li ko combat bi jaraloon mu ñëw fii pour loolu moo Adja Yacine Fall mii nga gis mu nekk ministère affaires étrangères ñoo yam mm-hmm. kenn ku nekk li nga bàyyi ci xaalis pour ñëw fii kenn mënu laa wax ni mu toll loolu nag Sénégal yàggee na ko ku meloon ni Thiaw Cissé Doucouré jamono bi Abdoulaye di ñëw ak euh, ñoom gaajo ñi cay jamono yooya ak euh, sëñ Ba Diop ñu baree bare ñoo xam dañ ci ñëwoon mii mi bokkoon na ci ñu mel noonu mm-hmm. maanaam mooy ku namul dara même bu amul woon dara it ku mën a muñ la maanaam même bu yorul woon ñaari salaamaaleykum it ku mën a muñ la. mën na muñ daal. voilà yow nan la nit di amee teraanga ju toll noonu ba pare boo mais mais nag am teraanga teewul nga jubadi mais liy wax ji daal mooy werante xooxaan tekki tubay léegi xam nga rapport bi dafa génn. Mimi ak euh, maritaw ñaan Niane ñu ngi ci joomaay président maritaw ñaan kër këram gi mu dëkk nii am na ñoo xam ne dañ ko naan bëggul dara daan ko lu tee nga am amul kër Ndakaaru lu raar ci ay ministre comme ko am bi mu yeggee bariwul moom fii la taxaw ne ñenn ñi ni ñuy amee kër ak yooyu ba pare doon ministre ak seen salaire bi ñu war a mën a am nee na loolu da jaaxal kon ñooñu maanaam yow même ci gis-gis da ngay xam ne ñi amul lu ñu sàcc ci alalu état léegi buñ ci tuddee ñoo xam ne wóor na la ne suñ demeek ñoom ci yoon loxo dar gémmiñ ci li ñu sàcc ni mu toll léegi ñooñu nag bu ñu amee ay journal yoo xam ne mën nañ leen taxaw mais danañ ne waa mii mi ci la bopp woon loolu day continuer di prospérer wala di ñu koy taxaw mais wax ji mooy la mu waxoon ca jamonoy Macky ndegam ca jamonoy Macky la naan publier leen rapport bi koo xam ne yow yaa commandité sa rapport mën nga bu la neexee tàbbal ci leneen sax def ko ci sàkkaa koo xam ne tey ndegam boobu nga koy wax waxuma la rapport boo xam ne président Diomaye nee na nañ ko publier nañ ko publier la wax te dana génn te moom waxoon na ca démb ne nañ ko publier te Macky publier wu te boobu Macky bëggu kon li mu wax loolu rek lay wax beneen bi nag mooy képp ku ko ci tudd te fekk du dëgg maanaam parce que ubbi sa journal képp di fenal nit ñi dafa yomb nag wala jël sa journal di fenal as gor dafa yomb buñ ko def na ko jaral na dem jusqu'au bout na la yóbbu ci yoon te buñ ca yeggee bu mu la parce que tamit il faut ñu jéem a respectante lépp lu ñuy jël ba koy wax ci nit ñu xool ko xoolaat parce que ñun ñi koy def nii lañ ca ginnaaw la ñu yàq la ñu xool alalu askan mais nekkul ne benn haine bu ñu am vers Farba Ngom wala keneen wala keneen wala keneen wala keneen li Mimi wax daal mooy sénégalais yi xam nañ ne Mimi sàccut alalu Sénégal man joxaat naa yeneen ay kii yoo xam ne wax leen la mu bàyyi gannaawam. Hmm. te quelqu'un la koo xam ne du some sommet. organisme international ñoo la ko gën a soxla ma nga noonu demande na ci liggéeyam. manaam nit ñi dañuy jub nañ wuti xam-xam loolu mooy wax ci. Hmm. loolu mooy dëgg. jub jubal jubanti. jub jubal jubanti maa la ko wax. Hmm. opération gox moom dana am du man dong. Hmm. bokk moo caako gën. muy la am solo euh, quand ñu euh, daal koy jaajëfal bu baax moom euh, Saa Wolof ñëw nag ci rubrique gan gi ndax suñu waxtu xocc na jëm ci jeex donc saa suñu gan tey mooy Baye sàmba waaw Baye Samba. sama wóolare hmm.